waaw ah, politique day ñu bari ci nit ñi dëgg-dëgg dañoo xamul wàccuwaayam ba ñu jàpp na rek eh, nit ki nu ko neex la koy defee rek day am ñuy sax ba naan fii la yem àddina la yem loolu nag njuumte lu rëy la ndax amut lenn lu yem àddina bu dee liñ jublu ci yem àddina mooy lu nit ki man di defit amu ci lenn luñ koy fay ëllëg bu àllaaxira loolu moom amut ci yenn jëf ndax yàlla wax ne ku def lu baax lu mu tuut tuut bu ëllëgee bu àllaaxira danañ ko ko woon fay ko ko ku def ci safaan itam lu mu tuut tuut bu ëllëgee danañ ko ko woon fay ko ko kon lépp lu ñu di def rek Euh, dana àgg ëllëg mooy danañ ko ko fay bu ëllëgee politique ci li nit ci di def la bokk kon moom it lu ñuy seet bu ëllëgee moom la mën naa doon nag lu nit di jëlee tuyaaba ju rëy rëy bu ëllëgee waaye mën naa doon it luy jural nit ki musiba mu rëy bu ëllëgee lëg mooy àllaaxira nu muy mën a koy may tuyaaba ju rëy mooy bu fekke da caa nekke nekkiin wu rafet jariñ ci aw xeetam jariñ ci ay dëkkandoom boobaa tuyaaba ju mag mën na caa juddoo ndax nit ki ngeen ko xamee ci lislaam bu ay farataam jàllee leneen lu muy def la ko cay ëppal njariñ mooy loo xam ne njariñ la dafa yaatu ki def lu ko jariñ moom rek ki lu ko jariñ njariñ keneen moo koy ëppale tuyaaba ki def lu jariñ ñaar mooy ëppale tuyaaba ki def lu jariñ kenn ku def kon lu jariñ ab dëkk muy ñi dëkk ci dëkk bu ñëpp kon nan la nan la tuyaabaam di toll ku def lu jariñ am réew nan la tuyaabaam di toll kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci wàllu politique ne luñ mën a jële tuyaaba ju baree bari la ginnaaw njariñul àddina li ci mën a juddoo waaye itam lu mën a jural nit ab safaan bu rëy bu ëllëgee la euh, ginnaaw bu lor ji ci mën a juddoo ci àddina jàlle fii mu ne nag réew mi ñu ngi toll ci di dëgmal li ñuy tudde élection législative mooy li ci tànn député yi boobaa nag ñett ko seq mënees na koo wax ñett ñëpp nag ku nekk am na ci wàll ku nekk itam dafa war a euh, doxal wàllam na ware ku ci doxal wàllam na mu ware mën naa doon njariñul nit ñi fii ci àddina waaye bu ëllëgee moom dana ci amee tuyaaba ju rëy bu àllaaxira ñett ñi ñooy ki nga xam ne moo bëgg ñu tànn ko mu nekk député mooy ki sàkku keneen ki mooy kii tànne kii tànn kii tànn ñetteel bi nag mooy ki nga xam ne mooy taxawu mooy taxawu mbir mi ba mu mën a euh, doxe ni mu war a doxe bañ mën a xam ne kii lañ tànn nii lañ ko tànne ku ci ne mu war a doxe doxin wañ séentu ci moom bu ko doxee rek mën naa doon njariñul réew mi waaye dana doon njariñam moom bu ëllëgee ki nga xam ne mooy sàkku mooy ki bëgg ñu tànn ko fim ne jamono jii ñu ngi toll ci li ñuy wax campagne électorale campagne électorale mooy ñi bëgg ñu tànn leen ñi bëgg ñu dénk leen ñooy wax ak ñiy dénkaane ñiy tànn di leen wax lu war a tax ñu tànn leen loolu mooy campagne électorale kon ki koy def wan doxin la ca war a doxe mooy war naa won nit ñi lu war a tax ñu tànn ko lu tax tànn ko moom gën tànn keneen keneen ki nga xam ne moom mi ngi laaj mi ngi sàkku loolu mooy campagne nu koy defee mooy dana wane moom buñ ko tànn noon lan la fas yéenee def loo xam ne njariñul réew mi lay doon bu boobaa nag la ca jiitu mooy lam naan fas ne na koo def na doon lu lu doon ab cëram ndax député dafa am cër am na lu dugg ci cëram am na lu duggul ci cëram kon la muy wax nit ñi naan leen fas yéene na koo def la ci jiitu mooy na bokk ci cëram waaye warta wax nit ñi lu bokkut ci cëram ba noppi naan leen fas na ko yéene def ndax bu boobaa du ko def ndax du cëram sax ba koy def kon na doon lu doon cëram ñaareel bi mooy na doon lum man lum mën a def cëram la waaye na ko manit nag ñetteel ba na doon lu mu nar lu mu nar mooy bi koy wax ne dana ko def dëgg dëgg la woon ci moom dëgg la ci moom bëgg na koo def bëgg na buñ ko tànnee mu def ko loolu mooy nar ndax nit nar la man waaye nag lu ak seegut moom munta dogu ci ne dana ko def waaye nag bëgg na koo def moom buñ àggee ci def ko jot nag bu amul gàllankoor mu def ko bu amee gàllankoor nag ñoo xam ne gàllankoor la am waaye façon na yéene def ko amoon na yéene def ko ko kenn du ko yedd nit deesu ko yedd ci lu mu bëggoon waaye ba def jote rek moo am gàllankoor ba mënu koo def liñ koy yedde li ñuy yedde nit moom mooy mu digee loolu bi mu koy digee fasu ko yéene def waaye daal day naxe day naxe wax nit ñi rek luy tax ñu tànn ko te fekk naru ko loolu xeetu wor la loolu la ñuy yedd kon na doon li muy wax ne dana ko def na bokk ci cëram ñaareel bi na doon lu mu man ñetteel bi na doon lu mu nar ni ma ko waxee député daa am lu nekk cëram ak lu dul cëram ni ñu tëralee sunu doxalinu réew ci Sénégal dañuy tuddee pouvoir exécutif te ci Sénégal mooy président de la République euh, ay dogu ak dogal moo ko man dëgg-dëgg bu député yi député du du defar tali du defar hôpital du defar école du joxew jiwu du du tabax ay usine du defar ay teli du defar ay raay du defar ay saxaar du lépp du cërub député loolu cëru exécutif la muy président de la république ak gouvernement bi koy jàppale kon député wër te liggéey ndax du cëram nit ñi nag xëy na Euh, ci ñàkk ràññee ak ñàkk teqantal gi dana tax ba ci lépp la ñuy wax ku bëgg nekk député lu ne nga wax ne dana danaa ko def te fekk du ciram wala nangam dana fi dañ wala dana fi jóg te fekk moom nu ko fee jëri ndax du ciram loolu lu jara bàyyi xel la euh, cërub député mooy lan bu dee ci sunu réew mi ak réew yu baree bari député bu ne député du kenn nit ki rek waaye assemblée nationale ci boppam rek la ñuy tudde parlement cëram mooy bi ci jiitu mooy di tëral ay yoon muy lu ñuy loi ñoom ñoo koy tëral lu ñu wax ci wàllu googu moom ci seen cër la tëral yoon leneen li moy exécutif bi nga xam ne mooy président ak gouvernement rawatina gouvernement bi ci boppam moom assemblée nationale wala parlement ñoo leen di contrôler contrôler mooy ñoo leen di xool te xool seen liggéey di xool ndax tege na ci yoon wala déet di leen di man di woo di leen laaj ci seen liggéey di ci waxtaan ak ñoom di leen euh, jéem a jubbanti loolu beneen ab cër la mooy ñaar ñetteel bi nag bu dee ci sunu réew mi lu ci ëpp solo mooy li ñu tudde vote vote ay budget vote budget mooy exécutif bi mooy président ak gouvernement luñ bëgg a def ci réew mi ci budget lay taje mooy dañ naan fas yéene nañoo def parce que nanoo def nangam ak nangam ak nangam nangam lu ci ne itam lu toll nii ci xaalis moo koy mën a def waaye itam bunt yi lan bëgg am wute xaalis bunt bi bëgg nañ fe ame nangam buntu bi nangam bunt bi nangam buntu bi nangam buñ noppee ñu xool liñ séentoo am lépp ne nangam la liñ bëgg a def lépp itam nangam a ko war a def loolu exécutif bi moom da koy waajal noonu ñëw ci assemblée nag gaaral leen ko ne leen lii lañ bëgg def nii lañ ko bëgg a def fii lañ ko bëgg a jëlee assemblée moo koy wëyal mooy vote bi mooy moo koy wëyal loolu tam cëram la ci wàllu googu contrôle bi muy contrôlé gouvernement bi dana ci mën a feeñaale gouvernement mën naa ñëw ne bëgg na def nangam assemblée xool ne loolu du farata wala bëgg na cee def lu tol nangam mu ne loolu ëpp na buñ ko mënta def ci lu yees nangam kon jaru ko loolu sañ na ko moom yu mel noonu mooy cëri assemblée muy cëru parlement député bu dee wax lu mu fas yéene ci lu yooyu la war a dugg bu ca duggee moom ñu ne loolu cëram la ndax man dana ko man nag dana ko man mi ngi aju moom ci ñi mu àndal nan lañ toll ci ci parlement bi mooy bu dee bariwuñ fa duñ mën a duñ mën a duñ mën a sottal duñ mën sottal buñ fa bëriwut genn bëri gi euh, bala ñoo mën a sottal rek dañ fay bari genn bëri kon bu ñuy dige yenn yi mooy day fekk ñu bëri fa genn bëri gu leen koy may waaye benn député wala ñaar ak ñett juróom mënuñoo andi copp yi tol nen du tey nag kenn rek sax moom bu tawee di indi xalaatam rek xalaatam mën naa amal njariñ réew mi mën naa am ñu topp ko ca te buñ ko ca toppee moo amal njariñ réew mi waaye nag mënta sop moom rek kon man-man bi ci wàllu seen lim bu baree ci la ñuy man luñ bëgg a def nar gi moom ni ni ñu ko waxee rek mooy bim biñ naan bëgg nañoo def nangam na fek ñu jublu ko muy luñ bëgg dëgg-dëgg euh, kon yooyu mooy cëru cëru député kii bëgg ñu tànn ko ci wàllu yooyu la war a wax lim ci bëgg a def wala lim ci bëgg a fànq fànq euh, ci yooyu la war a wax waaye waru koo weesu nag di sosal ki muy xëccool wala mu di ko tuumaal wala mu yàq ab deram yooyu yëpp bokku ci kon campagne warta doon loolu warta jëm ci tuumaal ki ngay xëccool ak di yàq ab deram ak di wax ci moom lu la leerut sañ ngaa wax ci moom nag lu doon dëgg tey wane ne buñ ko ko dénkoon kon du gën ci réew mi ndax ay jaar-jaaram yow it nga wax ci say jaar-jaar luy tax nit ñu war laa mën a doyloo ba dénk la ak it nag li nga fas yéenee def waaye kon wët weesu foofu sàkkantuma nag di àgg ci jëfandikoo fitna muy ay xeex wala ay yàqalante ak yu mel noonu loolu moom waru cee cee bokk moom ci genn anam tuumaalante waru cee bokk yàqante der waru cee bokk xasante waru cee bokk yu mel noonu ku koy def rek lu ci bari mooy daa amut dëgg-dëgg lu mën a wan nit ñi lu leen mën a doy ci moom li muy amee ci benn benn yi rek nit koo xam ne mënut a waxtaan mënut a am xalaat andi xalaat kooku mooy gaawa a xuloo mooy gaaw a saaga mooy a xeex ndax amut xalaat bum bu bu bu bu bu bu a waxe nit ñu leen doy kooku day gaawa day gaaw a jëfandikoo leneen lu dul xalaat kii campagne boo amee gisiin wu leer wu amal njariñ réew mi amal njariñ nit ñi kooka loola lay leeral ak nit ñi ku ko amul nag mooy gaaw a weesu foofu wéeru ci leneen ngir dara bañ leer loolu kon mooy wàllu kii sàkku ki bëgg ñu tànn ko te mooy li tuddee candidat ki nekk candidat ki nga xam ne nag mooy tànn mooy électeur bi moom liy waru garam moom mooy bu tànn jotee ñi nga xam ne ñooy sàkku moo xool ci kim jàpp ne digganteem ak yàlla nag digganteem ak yàlla kim jàpp ne bu ko tànnee mooy gën mooy gën ci nit ñi mooy gën ci réew mi digganteem ak yàlla ci xam-xamam lim xam daal ci ñii di xëccoo mooy ne diw mii tànn ko moo gën ci réew mi moo gën ci nit ñi mu tànn ko waaye warta tànn ngir lum bokk moom moo xam aw xeet la warta tànn nit ngir daa bokk ak moom xeet moo xam euh, dëkkuwaay la da ko tànn ndax ñoo bokk fuñ dëkk wala fuñ cosaanoo wala da ko ndax ñoo bokk tariqa wala da ko tànn ngir ñoo bokk ab sëriñ wala da ko tànn ngir ñoo bokk ab daayira wala da ko tànn ngir ñoo bokk lu mën di doon rek kon daal li ñu war a tànne mooy jàpp ne ñii di xëccoo moom mii euh, tànn ko mooy gën mooy gën ci réew mi mooy gën ci nit ñi foofu rek lañu war a teg tànn ki ñuy tànn ki ñuy tànn waaye waruñ ko teg ci ci des yëpp ci des yëpp waree ko cee teg waaye ci jàpp ne daal euh, tànn ko moo gën tànn keneen ki koy jàpp nag digganteem ak yàlla la koy jàpp ndax nun nit ñi xamuñ ci dara yàlla xam dëgg-dëgg yàlla xam la ne ca xolam waaye bu fekkee daal ba muy tànn moom daa jàpp dëgg dëgg dëgg dëgg na tànn kii moo gën ci réew mi gën ci nit ñi boobaa wàcc na bu yàlla dogalee buñ ko tànnoon mu ñëw demee noona mu sant yàlla boo demee neneen tam moom wàcc na kenn du ko yedd ndax nit lam man rek lañ ko sant lam man nag da koy teg ci xam-xamam lam xam ci lay mën a sukkandiku ba def lam man bu xasee def lam man nag wàcc na lam man bu yàlla dogalee mu dëppoo ak li baax na ah bu melee na leen tam moom wàcc na wàcc na gis nan yonente bi sallallahu fi muy waxee ne nit bu defe li ko war mooy buñ ko sante mbir mu jaar fam war a jaar ba jàpp ne nii la gëne ba def ko lam def bu yàlla dogalee muy la gën da ci am ñaari ñaari yool muy def na liñ ko def loo niñ ko ko def looye ñaareel ba it la lam def doon na la gën waaye bu fekkee yàlla dogal na doonut la gën it dana am benn yool moom muy yoolu def lañ ko def loo nañ ko ko def looye loolu mi ko joxe woon misaal ci kuy atte kuy atte koo xam ne jaar na fa mu war a jaar ba atte nee na bu yàlla dogalee lam atte dëpp ak dëgg dana am ñaari yool bu yàlla dogalee lam atte dëpp wut ak dëgg nag dana am benn yool ki nga xam ne daal moom ay daan lay am mooy ki nga xam ne lam ñuy def defewu ko nañ ko ko def looye mooy mu atte lu xam ne du dëgg ba noppi atte atte ko kooka moom wala xamut nu ñuy atte ba noppi ñoo ne day atte kooka moom lu mën di def moom ay daan la ce jële waaye ki nga xam ne xam na ni ñuy àttee xam na ko te itam fi ko war a jaar jaar na ko fa kooka moom dal dina am tuyaaba ba noppi dañ naan kay ndax jenn tuyaaba lay am wala yaari tuyaaba waaye am na tuyaaba ba noppi moom mooy am na yool ba noppi kon kii di tànn itam di vote bu xoolee digganteem ak yàlla ba jàpp ne voteel kiikat moo gën ci réew mi gën ci nit ñi bu demee noonu rek moom def na lañ ko sant te am na tuyaaba ba noppi moo xam nag kooka tànn nañ ko yàlla dogal mu gën wala mu mel neneen moom wàcc na ba noppi ñi ci des nag wal ñi nga xam ne ñoo war a taxawu mbir yi nag ba sotti bañ àgg ci ne ñii la nit ñi tànn bu dee Sénégal ministère de l'intérieur moo yore loolu ministère bi moo yor loolu am na lu ñuy tuddee Sénat moy ànd ak ñoom eh, ngir saytu loolu lépp ñooña lay seen warugar ñoom it mooy lépp ñu jaarale ko ci yoon rek taxawu mbir ñi mu jaar ci yoon jaar ci yoon ci jamono yi ñuy tànne jaar ci yoon it jamono yi ñuy wàññi ba xam ku nekk ñi ñi ko tànn nuñ tollu jaar ci yoon ci jamono yi ñuy fésal li jóge ci tànn boobu yi ñooñu ñooy ministre ministre mooy ñi nga xam ne kon ñooy saytu jëm ñi tànn gi muy jëm ñi élection yi ci boppam ñene seen kaw nag mooy attekat ya nga xam ne bu fekkee ñii liñ génnee ne moo ca juddoo ñi ko seqoon am nañu ci dëppoowut sañ nañoo dem jàmbat ko attekat yi bu dee Sénégal mooy conseil constitutionnel ñoom seen wàll moom it mooy ñu atte atte bu dëgg rek atte bu moom moo gën a doy waar lépp ndax yonent bi loolu moo waxoon noonu gis nga ci atte la ko waxee woon te waxoon na ne itam attekat ñett la ñett la ñaar ñi lañ jëm kenn ki moo jëm àjjana ki jëm àjjana mooy ki nga xam ne mën atte mën naa atte mooy euh, xam-xamub atte am na ko te it atte na ci yoon kooku àjjana la jëm mooy atte na dëgg lay dëgg la wax kooku àjjana la jëm ñaar ñi ci des kenn ki mooy ki nga xam ne moom dafa xamut ba noppi di àtte lu ci mën di juddoo moom daa dugg ci li yoonam nekkut kon moom ay daan la cay jëlee waaye keneen ki mooy ki xam ba noppi nag àtte lu dul dëgg ngir am ñum bëgg a bégal wala ñum bëgg a yàqal ñum bëgg a defaral wala ñu bëgg a yàqal ñu bëgg àndal ak ñu wala ñu bëgg a wuuteel tax mu àtte lum xam ne du dëgg kooku si yonent bi neen sawara la jëm yàlla ci yàlla moo ki nga xam ne daa xamut ba noppi di àtte moom itam sawara lay jëm waaye ki xam te àtte dëgg kooka moo jëm moo jëm àjjana àtte dëgg gi nag mooy àtte bi mu jaarale ko ci yoon moo xam la mu àtte dëgg dëgg mooy dëgg moo xam juum na waaye ki ki jaar ci yoon te juum kooke itam euh, àjjana lay jëm yi daal foog naa ne fii ñu toll ci wàllu élection législative yi warees na ko mën a waxtaane jamono yi ba ñu ko seq ñëpp ku ci ne xam la cay wàllam ku ci ne xam nam ca war a doxe ku ci na xam ne itam bu doxee nam war a doxe loola mooy doon njariñul réew mi tey waaye loola itam lay mën a amee ba moom ab yool ëllëg bu àllaaxira tan xam ne amul lenn lu yem àddina ñett ñiko ko seq amul ci kenn koo xam ne la def àddina rek lay yem kii sàkku bëgg ñu tànn ko la muy def la muy wax ngir ñu tànn ko lépp la yàlla di seet di xool lu ca baax mu fay ko ca tuyaa ba ëllëg lu ci doonum safaan tam mu yeyoo ci ay daan ëllëg kii tànn itam moom itam la muy sukkandiku bay tànn bu dee la mu war a sukkandiku la sukkandiku dana ci am tuyaaba bu ëllëgee bu sukkandikoo ci leneen nag lu mu sukkandiku dana ci yeyoo daan bu ñi nga xam ne ñooy saytu ak ñi àtte it ku ci doxal mbiram ci yoon dana ci am tuyaaba bu ëllëgee waaye ku ci doxalut mbiram ci yoon itam dana ci yeyoo ay daan bu ëllëgee noo ngi jéggulu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu